Ameth c'est bon xalaat naa ci affaire yi je suis prête en fait mais j'aurais préféré toog ak yow ak kooku ñu waxtaan tout sa kon ko instant bi nag nekkoo fi xaw ma nu muy demee mais bëgguma jël benn risque di envoyé vocal et tout ça mooy loolu. mais Ameth xam man la gis mu gën a yomba di jënt numéro Ousmane Sonko. ah wax ko ni cas yëpp dégg naa ko et tout ça ko nu mu demee naa ko temps laa soxla mais le reste man man maa bëggul ay ay ma génn si ay journal wala yeneen ak yeneen wóor na ma ne su amee sama photo dina génn comme photo gel bi nu mu génnee ñooyu laa bëggul léegi rek la la wax nii. Ameth man damay xalaat ñi ma xam ñu nekk ci état bi yëpp gis nga loolu su xasee ba jàll kenn dootu la ñeme comprendre nga ñëpp dinañ naan ni gel bi nii gel bi naa man yooyu lay xalaat. yooyu lay sóoraale billaay. waa kon may ma jël sama temps may ma jël sama temps dégg waaw ooy ma léegi yow ma damay envoyé benn vocal wax fu mu commencé ba ni ñu xamante et tout ça ok am problème léegi damay day mos bi mooy lan est-ce que explique mu leer day mos bi mooy lan ak affaire yi ni muy demee suma ma envoyé vocal bi fu muy dem ak explique ma daal tuuti. laay bañ nag vocal bi jiitu plainte après ñëpp xamee sama baat tu mu nekk fi si internet bi et tout ça. billaay mën naa jël sama responsabilité mais yow nga toog comprendre nga moom mu toog mais pas ma envoyé le vocal bi yow nga transféré ko wala nga koy déglu loolu loolu ñëpp mën na koo capturer man wolu naa la de mais ñoom wóoluwuma leen.